Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Cheikh Ndiaye nga nekk expert en géopolitique ñu wax déjà euh, la xew ca Tchad nag euh, lu toll ci cinquante personnes ñàkk seen bakkan nit yu bari euh, jële ay gaañu gaañu ci organi ci manifestation yi nga xamante ni opposition bi moo ko organisé woon ndax toog gi nga xamante ni Idriss Déby Itno toog na ko ci bopp transition bi am foofule ca réew ma déjà yow ban analyse ngay def ci situation bi nga xamante actuellement tchadiens yi ñu ngi koy dund si seen réew. waaw li xew ci Tchad nag euh, vraiment lu ñuy déplorer lu metti la mais sona woon nañ alarme bu yàgg waxoon nañ communauté internationale bi fi Tchad jëm euh, du loo xam ne nag na neex ci ci ci continent africain parce que euh, Idriss Déby bi biñ ko bi mu gaañuwee doomam remplacé ko Mahmad Déby dañoo gisoon ni Mahmad dafa wax communauté internationale bi yëpp ba invité France Emmanuel Macron ñëw toog mu ne leen dañuy def benn dialogue national après ñu dem vers des élections démocratiques ñoom ñu cédé le pouvoir mais li ñu constaté mooy Mahamat Déby dafa doon maanaam selon yenn observateurs yi ne leen li mu woote noonu farce la ndax da doon nax nit ñi nax acteurs yi maanaam écarté ñenn ñi ni leen yéen bokk leen ci dialogue bi lu ci mel ni fact ñoom nga xam dañoo dem ba gedd dialogue bi ak parti politique yu bëri ndax dañoo gis ni Mahamat li mu bëgg mooy consolider son pouvoir prolonger transition bi après présenté wu aux élections présidentielles te daanaka xëy na loolu moo mujj am moo tax Tchad actuellement bi eh, dialogue national boobu amee ñu écarté parti politique yu bëri ak pacte mi nga xam ne moo pratiquement rayoon eh, Idriss Déby ñu gis ni Mahmat ay nitam la defal dialogue toog ni léegi damay prolonger transition bi de deux ans bu ma prolonger nekk candidat à l'élection te gis nañ ni loolu mooy maanaam eh, Mahmat mooy nekk président de la République du te loolu la commune loolu la waa Tchad mënatul nangu maanaam parti politique yeeg syndicat yi fa nekk ak euh, vraiment euh, yeneen yeneen ñi ñànk réew mi léegi nag gannaaw ba loolu amee euh, ñu gis ay manifestation yu opposition bi woote woon démb ay décès yu bëri am fa répression bu brutale am fa vraiment Mohamed Déby démb ñoo ngi naan presque plus de soixante personnes deen ak plus de deux cents blessés donc loolu pour wanee ni actuellement Tchad mën nañ ni problème bu méttee fa am te loolu dafa war a yee communauté internationale bi parce que boo seetloo dëkk yu mel ni par exemple Sénégal ñu ancien premier ministre Mimi Touré moo ci doon wax sax naan li xew Tchad lu mel ni ces pays ñu parce que y a de morts ñoo ngi te benn dese boo bu am rek loolu vraiment du lu ñuy souhaité pour dëkk boobu lii yëpp euh, nit ñi xamoon nañ ko communauté internationale xamoon nañ ci lii lañ jëm ndax beaucoup d' experts ont prévenu mais mutuisme Union africaine jaaxal nañu mutuisme organisation continentale bi ba tey daf ñu xaw a jaaxal ndax d'habitude war na mën a envoyé avant yu mel nii di am ay délégation pour entamer ay pourparlers pour ñu waxtaan ak régime tchadien bi balaa euh, lu ëpp di tuur. Euh, pour yow Cheikh Ndiaye euh, Tchad mën na génn ci crise bi gaaw gaaw wala. wala dina ah. yéex pour mu génn ci. Tchad gëm nañ ni mën na génn ci crise bi mais du gaaw ndax régime bi. régime militaire la te conseil militaire moo porté benn nit au pouvoir maanaam Mahamat Déby Mahamat Déby conseil militaire moo ko jël teg ko foofu te conseil militaire boobu xam nañ ni dafa am doole au niveau du Tchad moo te conseil militaire boobu mën na imposer Mahamat Déby ba Mahamat Déby dem ba nekk président de la du Tchad. Hmm. mais lii des euh, gis mooy est-ce que opposition tchadienne bi avec les mas euh, les Julius Masra moom est-ce que dinañ nangu. Mm. ñu xool Mahamat Déby di confisquer le pouvoir bañ a def transition démocratique joxe pouvoir bi ndax ni ñi mën a présenter wu ndax civil yi mën a présenter ñu dem. ca tourner la page des régimes militaires am page boo xam ne maanaam régime démocratique mooy am élection yu libre la ñuy organiser si dëkk bi moo tax am nañ ci yaakaar waaye gëm nañ ni bu ci communauté internationale bi jàppul ñu. daan cat ay daan yoo xam ne par rapport ak exaction yi fa nekk di am nii la gëm nañ ni daal euh, changement bi dina xaw a yàgg. Euh, ñu wax si euh, Guinée Conakry euh, dictature nee nañ moo fa amoon ak alfa Condé beneen dictature actuellement guinéen yi ñu ngi koy dund ak Mamadi Doumbouya gannaaw ba mu defee coup d'état bi ñu bëri doon ko tàccu en tout cas actuellement situation tamit bu metti guinéen yi ñu ngi koy dund déjà pour yow lan moo indi situation bi ca ca ca Guinée ñu coup d'état Alpha Condé ñëpp kontaan di tàccu yaakaar ni dinañ indi lu wute ak Alpha Condé ñii nag indi fa régime dictatorial bu gën a doy waar ba tamit euh, Guinée métti na situation bu fa am. situation bi xew cat nag démb boo seetloo dafa xaw a muur sax li xëy na li xaw Guinée parce que Guinée tam ay manifestation yi moo fa amoon répression bu metti am fa. Mhm. même comme ni nga ko waxee rek bi Guinée coup d'état amee ñëpp doon tàccu mais tamit experts yu bëri prévenir woon nañ. Mhm. parce que Guinée dafa am trajectoire politique bu metti depuis Dadis Camara ak ñi ñëw yëpp gis nañ ni Guinée dafa mës a am trajectoire bu difficile mais Guinée duggoon ci as euh, ci ère maanaam bi Alpha Condé ñëwee élection présidentielle yu démocratique Alpha Condé arrivé au pouvoir donc def ñaari mandat wam waroon cédé pouvoir bi de manière démocratique ndax def na ay mandat wam mu dem mais moom it mu def benn forcing parce que bu Alpha defaroon rek euh, maanaam ñaari mandat wam yooyu bu ko defoon rek joxe le pouvoir dem xëy na Guinée du nekk ci trajectoire bi mais moom dafa ñëwoon forcé looloo taxoon boo seetloo bi coup d'état bi amee nit ñi génnoon doon tàccu parce que nit ñi bëggatuñu président buy def plus de deux mandats looloo taxoon rek nit ñi gënoon bëgg Mamadi Doumbouya nag bi mu defee coup d'état ñëpp on xaar mu def benn transition joxe pouvoir bi dem mais moom it il cherche à se pouvoir ba pare restreindre droit yeeg liberté yi ba ku génn di manifester lu ni FNDC mooy Fonds national pour la défense de la constitution gis nañ ni ñooñu seen marche yëpp leen réprimer seen leader yu mag jàpp tëj ñi même ba société civile bi ñoo ngi jàpp maanaam gis nañ ni Guinée actuellement dafa nekk di jël beneen tournure mm-hmm. beneen tournure boo xam ne xëy na communauté internationale bi ko war a dénoncer communauté internationale boobu nag ki ci war a jiitu mooy CEDEAO ak Union africaine malgré que ñoom ñoo ngi dénoncer mais dafa di dëkk boo xam ne dëkk bu am trajectoire historique bu important la sur le continent africain dax euh, ba muy jël indépendance en cinquante huit daf ko jëloon ak fulla ak fayda euh, vraiment jëloon ko jël boo xam ne adduna bi yëpp ñu euh, woon dëkk bi dina tegu xëy na ci yoonu démocratie boo xam ne bu jéggi dayoo lay doon mais tey li ñu gis nii gis nañ ni Mamadi Doumbouya bi a bi mu jëlee pouvoir bi ci Alpha Condé ba tey lu li ko gën a soxal mooy xool nu muy maintenir boppam au pouvoir ba pare répression yi mu nekk def Guinée réduction des libertés yooyu moom la ñuy dénoncer li am Guinée actuellement. Euh, ñu euh, gis ni est-ce que euh, mën nañu am solution pour Guinée am stabilité parce que gëj na ko am. waaw Guinée solution mën na am. waaw Guinée régime militaire bi fa nekk actuellement au pouvoir. xëy na am na Euh, nangu na délégation yi di ñëw au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine ndax nit ñi ngi ñëw di wax ak moom moo leen di recevoir moo ngi déggoonte ñoom donc pour parler yooyu mën nañ nangu ni ñoo ngi am te lu la te xëy na ay avancées dina ci am yoo xam ne officiellement peut-être mënaguñ ko wax mais officieusement am na yu jot a xew seen biir mais li gën a tax ñu gëm ni ay avancées instant yi dafa am xaw a am blocage mooy gis nañ droit yeeg liberté yi nga xam ne ñoo ngi koy restreindre ñu mel ni ñoom Cellou Dalein Diallo ay Sidya Touré ak ñeneen ñeneen gis nañ ni daal ba tey homme politique guinéen yooyu dañuy def tout pour museler leen pour bañ leen bàyyi ñu mën a exprimer wu wax de telle sorte que dinañ permettre Guinée mu génn situation bi mu nekk moo tax situation bu difficile la situation boo xam ne c'est à observer euh, il faut tamit euh, ñun waa Afrique ñun peuple africain yi ñu jël suñu responsabilité par rapport ak euh, yu mel nii. Cheikh Ndiaye CEDEAO Union africaine est-ce que mën nañ dara euh, ci situation ba am ca Mali ak ca Tchad actuellement. Euh, CEDEAO ak Union africaine. waaw bi Macky Sall jiite. Mhm. Mm, CEDEAO nga xam ne moo nekk Umar Sissoko Embaló Union africaine nekk sous l'escarcelle euh, actuellement de Macky Sall nga xam ne mooy président en exercice bi bu ñu fàttali ko Umar Sissoko Embaló benn sommet bu ñu daje woon Alpha Condé le njëkkoon dénoncé foofu ni que yow da def coup d'état constitutionnel ndax da bëgg def plus de deux mandats léegi bu ñu jëwee si kaw président de l'Union africaine Macky Sall moom la xam ne ñaari mandat wax mat na mais d'après plusieurs hommes politiques du Sénégal moom dafa bëgg def un troisième manda léegi nag li ci gën a euh, doy waar mooy on va voir si le président anglicisé de la CEDEAO va faire le bon exemple donner la leçon à ses pairs def deux mandats organiser ay élection démocratique dem ñu xool tamit fële Oumar Sissoko Mbalo moom it ban comportement la nag am Guinée ndax dëkkam xam nañ ni stabilité bi ba tey dafa des donc suñu institution continentale yooyu mooy li may wax rek il faut mu am benn sérénité si euh, ñi koy jiite parce que ñoom ñiy jiite en général bu ñu nekkee ci opposition bi ñoom ñooy woote ni démocratie mooy nga def deux mandats nga dem mais dañ leen di ñu accéder au pouvoir dañuy jéem a def ay manipulation pour de se maintenir au pouvoir donc CEDEAO Euh, seen euh, maanaam seen dëgguwaay dafay des moo tax des fois sax dañuy jox ay directives ay pays fii au niveau de l'Afrique nga gis leen pays yooyu brandir seen souveraineté euh, ak seen indépendance parce que tout simplement organisation continentale yi ak organisation sous-régionale yi vraiment réussir wuñu seen mission par rapport à beaucoup d'aspects moo tax président bu mel ni Buhari moom gis nañ ni moo ciy dox tànk tubayam parce que nee na président yi amatuñu droit def deux mandats te loolu nañ ci xool nu ñuy wutee cadre institutionnel bi permettre ñu mën ko soutenir. Euh, Cheikh Ndiaye ñu wax tamit euh, ci Mali Mali gis nañ souvent dafay accuser France ne France dafa ba mooy euh, mooy ki euh, déstabiliser Mali carrément euh, lan mooy expliquer en tout cas le fond euh, des problèmes diplomatiques entre la France et le Mali mënuñ déggoo surtout actuellement waaw France ak Mali nag seeni problème dafa xaw a jafe ndax gis nañ bi euh, Assimi Goïta o au pouvoir Mali ba tey xëy na li mu bëggoon diversifier partenariat économique yi ak militaire ba convoqué Russie Russie envoyé que selon le régime malien euh, ay ay kii nu conseiller militaire alors que France dafa ne ay mercenaires ñoo intervenir Russie yu tudd Wagner alors alors que le régime malien moom dafa dégager loolu léegi nag si werante yooyu ak xuloo yooyu moo taxoon Mali dem ba ni France ne quitter sous son sol ma si la France génnee sax bakkan Mali léegi nag ñu gis ni problème daal depuis lors mu am diggante ñaari réew yi léegi nag fan yii ñu gis conseil de sécurité de l'ONU Mali déposé fa plainte contre la France ni France dafa nekk du soutenir ay groupuscules armés euh, selon le toujours le le gouvernement malien di leen joxe ay armes pour ñu déstabiliser Mali. léegi nag euh, France moom dafa réfuté loolu ni na Mali génne ay preuves léegi nag li communauté internationale bi di xaar di ñëpp di xaar mooy Mali génne de preuves photographiées ou documentées et authentiques de ces accusations là parce que dafa ay accusations yu yu yu jéggi dayoo yoo xam ne euh, pratiquement am ka contre France yombul donc régime malien bi ne neen am na ko moo tax ñëpp instant yi loolu la ñuy xaar te on souhaite que par exemple lii mu am benn dénouement boo xam ne dina permettre peut ñu xool nan la ñaari dëkk yi mënee vraiment toog ak waxtaan ñu trouver jàmm am seen diggante coopération bi mën a commencer waat dans d'autres aspects pour ñu permettre que vraiment jàmm wax sax ci sous-région bi. voilà dernier question monsieur Ndiaye euh, ñuy euh, organiser lundi bi ak di fii ci Ndakaaru sommet euh, sur la paix et la sécurité en Afrique est-ce que mën nga ñu wax lan mooy enjeu wu euh, daje bile. waaw euh, sommet sur la paix et la sécurité dafa di sommet boo xam ne lu ñu war di def Afrique la ndax Afrique depuis indépendance yi ba tey li ko balee si ay coup d'état dafa bëri donc bu ñu defee sommet boo xam ne sa parle de paix et de sécurité dina permettre ñu comprendre que ni depuis ba tey problème sécuritaire moom am au niveau du Sahel au niveau même du continent africain ndax yi dañoo dem ba sentir tout ñun ñi ñoo sécurité ndax seen gouvernement i il n'arrive plus à garantir cette sécurité là li koy wane mooy da nga gis ay groupuscule yu yor ay armes ñëw déstabiliser réew coup d'état am euh, donc population yi di barricade wu di daw di fuir seen ay dëkk donc loolu pour wane nii donc il faut Afrique am benn politique collective euh, de de sécurité boo xam dinañu mën a permettre ñu mën a préparer par rapport à ces euh, facteurs la peut-être qui nous est endogène ñoo xam ne dañuy déstabiliser suñu yenn régions yi di diviser suñu réew te loolu tamit pour sommet wu sécurité yooyu gën a dox il faut ñu ciy waxtaanee maanaam développement parce que zone yi nga gis yi ñu gën a déstabiliser mooy zone yi nga xam ne pauvreté moo leen gangréné zone yoo xam ne mal développement moo fa am moo tax de ce fait euh, groupuscule yi dañ fay ñëw mun a def ay recrutement mën nangu zone yooyu donc euh, sommet wu paix ak sécurité bi ñu war organiser nii bi nar am nii dafa di loo xam ne lu baax la dina permettre xëy na tamit ñu am benn Euh, benn politique collective wala mu nekk embryon bi nar a génne politique collective buy permettre pays africains yi ñu mën a di diisoo di waxtaan noonu la ñu mënee voola suñu doole pour intervenir dans des zones sensibles. voilà Cheikh Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax ci sa disponibilité. merci Amady merci. voilà may fàttali ne expert nga en géopolitique.